nooy ci kanam mbokk jullit dijji ci kanam yéeféer di jihaat ci yoon yàlla te ragaloo yedd ak aji yedd kooku mandarga bu yoon yàlla bu gën a jàmbi waaye am fanaaw dem ba yàlla nekk la waxoon naa ne ku yàlla nekk rek mu xam ne yàlla nekk na ko rek yàlla nekk jaam naa jaam nekk yàlla du benn borom bi subhanahu wa taala bu jaam bi amee yëg-yëg ci moom jege ko lool kooku yàlla rek lay yëg de yëg gim yëg yàlla rek léeg-léegi moo bu doole ba mu jaxase wax ci xaqi borom bi fekk boobu dafa yëgatul boxam ni jinne di waxee ci nit nga xam ne nii jinne jee wax naan maa def nangam maa def nangam yow nga dégg di ko déggee ci la muy nit ki ndax jege gi mu ko jegee noonu la yàlla léeg-léegi di waxee ci la muy jaam bi la lay wane nag yàlla wax ci la muy jaam bi bu baax dina gis jaam bi di askane bu xombe la yàlla bu xiree rek pare na ci nag ndax moom waxu ko woon te du dëgg ci moom kooku yàlla du ko topp jàmm man ci àddina rek boo ko defee yàlla toppatul la rawatina man di ci yàlla de ak bëgg yàlla ak jege ko kooku yàlla du topp jàmm bi muy wax jamono jooju waaye bu xëyee rek pare na ci de yàlla waxee ci làmmiñu garam nag ñu lay waxee ci làmmiñu nit waaye nag jàmm bu nuuree ci péeb seytaane jege seytaane dafay wàcce yàlla ci wàcce waayu jaam bi ndax moom jaam la jegere moo tax melo jaam yi lay gis bi subhanahu loolu mandarga ne jeex ci ci la nuur yàlla nag moom ci boppam moom mën naa askane boppam lu ne ndax lépp moo ko moom waaye jaam mënu ko askane lu muy ak mat de yaa ngi dégg loolu kon ngeen jaam bi jeex ci yàlla kooku mandargaaye mbëggeelu yàlla la ci jaam bi ñu ngi continué mandarga yi mu ne waanu jëlee nañ ci moom kuñ njëkkoon tudd Abu Hurayra ani nabi mu jëlee si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na yonent bi nee na isa ahaba bu bëgg yàlla la alhamda jàmm bi yàlla ñu ko yàlla wërsëgal naa daa woona jibril a jibril ne na laa nag yàlla taala kawe na yuhibbu dana bëgg fulaanan diw faax bi bu bëgg ko fayoxi boobu bëgg ko jibril ali sama ci waa asamaan ne inna laa naka yàlla yuhibbu dana bëgg fulaanan diw faaxibu bëgg leen ko fa yuhibbu mu bëgg ko ahlu waa asamaan su ma yu daw topp ñu teg la woon ñu ko nangu fi ardi si suuf muttafaqun ali hadis bi ñu dëppoo la yàlla bu bëggee jaam daf naan jibril sama jaam diw bëgg naa ko bëgg ko rek Jibril bëgg ko ci saas na yàlla bu la waxee defal nangam rek daf koy tàbbil sa xol waa ji di soppeeb Jibril moo tax fii ci àdduna booy dund bu la cofeel ak kenn xéem jëlee cofeel ak ñenn ñi nag baax na ndax ñu jege yàlla duñ par parloo bëgg yàlla lool suñu la bëggee rek ah niru ne la jege nga yàlla buñ la bëggee yàlla mën na laa bëgg buñ la bëggee mën nañ laa ñaanal yàlla am na ñoo xam ne daal nga amalanteeg ñoom bëgganteeg ñoom kooku njëriñ lu rëy ci ndax mën nañ laa ñaanal mën nañoo amu ñeer la mën nañoo taxaw taxawaay yoo xam ne dana tax yàlla bëgg la waaye daal loolu bu mu doon sa ca càkkutee ku ne ci àdduna bu la fonkee bëgg la mm. bu mu la yéem yootul mbëggeel ak jibril gëre xanaa jibril ko gën a rëy moom fexeel xegg ba jibril bëgg la fexeel fegg ba borom bi subhanahu wa taala bëgg la bëggeel googu mooy mbëggeel gu dul sooy de ndax mbindeef bu la mën a bëgg rek mm. mën ngaa bañ a jariñu sax bu dee yow sa mbëggeel ci moom xóotul ndax mbëggeel ak ku ndaw ki mooy gën a jariñ mbëggeel ak ku makki de ba mu des yàlla moom bu la bëggee bëggeelam moo gën a mën a jariñ nga bëgg ko kon nag ku nekk na la dañ loo yàlla bëgg ko yàlla nag jàngoon nañ ci hadis bi ne sax ci farata yi nekk ca naafile ya moom la lay bëggee kon boo bëggee yàlla bëgg la yoon baa ngi nii saxal ci farata yi nekk ca naafile ya te muñ ndax jaamu yàlla yombul léeg-léegi xaal yi day soppeeku nga tayal lool léeg-léegi xaal bi soppeeku nga jaaxle lool léegi-léegi xaal bi soppeeku nga am métiti yaram yooyu yëpp dafay dal nit di ko garde léeg-léegi nga ñàkk dégg nga léeg-léegi ay problème yu dul jeex nekk ca kanam waaye yooyu yëpp bu mu tee moom lay xaq yàlla nga joxe ko de li yàlla moom jox ko ko rek dégg nga ak xaal boo mën a dund mu neex na nga jaamu sa borom mu naqari nga jaamu sa borom mu métti nga jaamu sa borom mu sedd nga jaamu sa borom lu mën a ñëw daal mu la tee jaamu yàlla boo nekkee ci farata yi na nga nekk ci naafile sax ca rek bu yàggee yàlla bëgg la de naafile yi gën a gaaw nag pour yàlla bëgg jaam bi mooy naafile yi nga xam ne ni sëriñ ci am ndigal joxe nañ ko mooy tariqa yi rek laa ndax tariqa du daal lu mooy naafile bu baax loolu rek la kon Bo bëggee yàlla bëgg la saxal ci jàppal ya sa lislaam bu baax te nga fonk sa tarix man noonu laa koy waxee te nga fonk sa tarix sart yi nga xam ne sa mooy sartaay bi fonk bu baax bul déglooti keneen nag luñ la wax daal melal ni fas wu takk ay lonet rek moom ci kanamam rek la xool xoolul ndeyjooram xoolul càmmooyam fonk na farataam lislaamam bàyyiwu ci dara fonk na tarixaam mu ngi ciy góorgóorlu ni ko bi ma ne ku def lii di soppeeku yàlla yàlla nag bu la bëggee danaan jibril sama jaam diw bëgg naa ko bëgg ko jibril nekk sa soppe léegi fonk la yàlla woote ci asamaan ne yéen waa asamaan sama jaam diw bëgg naa ko bëgg leen ko waa asamaan yëpp bëgg la moo tax bëri na kuñ xamut ci suuf waaye kuñ xam la ci asamaan mën ngaa wax ne amaana yomal qiyaamati bu yàlla wuññee kiiraay ba dekkil jaam yi dana gis wëlli yoo xam ne mosoo foog ne nii lañ mel ndax dañoo nëbbatu ba jigéen kenn xamu seen taarix kenn xamu seen histoire dara ndax ñoom bëgg nit ñi xam leen seen diggante yàlla la yoonu nit ñi nekkul ci bëri na de ëllëg mën ngaa daje koo xam ne naan a ah, diw ndeke nii la mel man foog moo ne diw hegg na ci maqaama bii de fekk ci àdduna dafa masko woon ndax moom soxla wu woon nit ñi xam ko yàlla rek la soxla woon comme que yàlla la soxla woon nag jërul muy huññi boppam de Uwaysul Qarni ci ñooñu la bokkoon waaye teewul yàlla xam le na ko moom ba mu feeñee dafa daw loolu mu leen di tegtal mooy am na ñoo xam ne ay nit yàlla yu màgg lañ waaye dañuy nëbbatu bëri na kuñ xam ci kaw suuf amaana ca wetam <clears throat> am na ku kenn xamut te moo ko sut foofu maqaama ci yàlla de kon bëri na kuñ xam ci asamaan réere ko ci suuf waaye bëri na ku ñu réere ci asamaan xam ko ci suuf de su ko defee bu yàlla bëggee jaam bi bu waa asamaan bëgg ko nag daf koy defal xabul ci kaw suuf maanaam nit ñi dañ koy nangul dañ koy bëgg de fu mu jublu rek nga gis ne dañ koy jox cër xormaal ko loolu ci mandarga yi mbëggeel yàlla ci jaam la day am xabul maanaam lay nangul de ci kaw suuf doo am benn jafe-jafe ci suuf si ñaareel maanaam say noonu sax dañuy maslaa ndax xorma gi nga xam ne jox nañ la ko ak fonkel gi nga xam ne fonk nañ la ko de ci seen biir xol ñu ne contour sax laa contour nañ la waaye ci seen biir xol xam nañ yow mii jàmbaar nga jox nañ la cër de respecté nañ la bu dee yàlla ba génnoon ngay mel da nga am xabul nit ñi dañ lay jublu xool leen rek léeg ngi koo xamee dafa ñuul kooku ñu weex tàll di foon loxoom xabul gi ko yàlla defal la léeg nag di tam saay-saay boo xam ne niru na ko am xabul waaye loolu du xabul ndax loolu nit ñi bëgg nañ ko nii rek waaye nombu tànkam baa tax ñu bëgg ko bis bu nombu tànk bi follee koo ñu bañ ko ah mos ngeen a gis ñu naan dañuy defal ziare président de la république sangam wala borom xalal sangam ku ci dee fàtt nañ la te pourtant ba ngay dund ma naa boo génnee ñëpp rëdd loo kooku xamul bëggoon ak ndomba tànk ba ba mu ko ñàkkee fàtte nañ ko léeg-léeg nga président bu falu bu doon génn oto yi di réer mbooloo mi topp ko waaye bas ba mu follee ko mën naa mën naa dox tànkam sax ñaari nit duñ ko nuyu kooku amul xabul de ki am xabul mooy kan mooy koo xam ne nii génn àdduna ay ati at te ba léegi rek nit ñaa ngi réer loo jëm ci moom hmm. fonk ko ngir yàlla bëgg ko ngir yàlla yëkkati ko ngir yàlla di ko bàkk ngir yàlla mu gënal leen lu ne hmm. loolu mooy xabul gi de xabul googu day sax xool leen ko ci ñu doon liggéey yàlla rek ñëpp leen nangul ku ñëpp nangul nag amut danga am ñu bañ waaye ña bañ seen biir xol xam nañ ne waa yi jàmbaar la moo leen mën foofu kon nangul nañ ko loolu mooy xabul gi yaa ngi dégg su la yàlla bëggee da ngay am xabul ci kaw suuf su ko defee lii mooy mandargaay mbëggeel yàlla lii ci la bokk bu la yàlla bëggee jibril dalay bëgg waa asamaan bëgg la yàlla defal la xabul ci kaw suuf mooy xol yi nangul la même bu làmmañ yi di bañ bañ lu cër yi di bañ bañ lu sax xol bi moom accepté na accepté na bu leen jaawale nag koo xam ne làmmañ yee ko accepté ak bëgg-bëgg yi ak koo xam ne xol baa ko accepté nitu yàlla yi xol yaa leen bëgg nitu àddina yi nag làmmañ yeeg xaal yaa leen bëgg de ndax ku ñàkk da nga leen bëgg ngir ñu dimbale la waaye bis buñ dee rek pare nga ca bu leen jaawale nag wali bu nëbbu ak ñàkk xabul am na koo xam ne nit ñi xamuñ ko sax ba koy nangul waaye daal kenn jëppu ko moom loolu it xabul la rek laa wax de ndax ku nëbb moom kenn du ko xam muttafaqun alayhi hadiis bu ñu dëppoo la wa fi riwaayatin ci beneen nettali li muslim ñeel muslim qaala wax na rasulullah yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ne inna laa naka yàlla taala kawe na iza ahaba bu bëggee am dan jaam daa woona jibril a jibril fa qaala mu ne ko inni naka man uhibbu dama bëgg fulaanan diw faax bi hu bëgg ko yàlla na yàlla defal lii yàlla bu bëggee jaam daf naan jibril bëgg naa sama jaam diw bëgg ko fa yuxi buu bëgg ko jibrilu jibril lu gën a màgg lii su may naa di topp mu xoof fi samaay ci asamaan fa yaqulu mu ne inna laa naka yàlla yuxibu dana bëgg fulaanan diw faaxi ko fa yuxi buu mu bëgg ko awlu samaay waa asamaan yàlla ne yàlla woote ci ne bëgg naa diw bëgg leen ko waa asamaan bëgg ko de su ma yoolu topp ñu teg la woñeeku alxaburu nangu fiyaar di si suuf mooy lan mooy xool yi dañ koy accepté xool yëpp koy accepté doo am xool bu ko résisté dañ koy bëgg waaw accepté benn force rek wala ci coobare ñi ko accepté ci coobare nag mooy ñi ko fonk ngir yàlla bëgg ko mu gënal leen lu ne ñi ko accepté force nag moo ñi nga xam ne nii gaa ñi ngay bañ bañ lu waaye seen bit xol buñ sañoon mel ni moom koo bëgg mel ni moom na kooku bañoo ko rek laa wax de ki nga bañ nee na lim xam bu ñu la ko joxoon nag nga jël nga ne waaw loolu de bëgg naa ko wala ndax bëgg nga sa doom mel ni moom nga ne waaw kooku bu yàgg nitu yàlla lañ mel kenn bañu leen kañaan rek fa nekk waaye ñëpp bëgg ndax koo gis mu bañ leen su sañoon mel ni ñoom ndax am na am na luñ xamut def na luñ defut mel na luñ melut de kooku xam nga bañoo ko wala boo koo xam ne nii kenn xamu ko waaye kenn dàqut ko benn xol résité ko kooku am na xabul ci kaw suuf waaye xabul ko dafa nëbb ndax wali bu nëbb ñoom nekk ñëpp dañ koy fonk nag waaye ab ab ab waaye waaye lañ koy jàppe di ko reetaan di kaf di nangamee ñëpp koy fonk ndax ko am jàmm rek lay mën doon moom foo ko fekk parce que yéen nga déggam su ma yooloo topp ñu teg la ñoo ko xabul nangu fi daal di suuf ويذهب خد ابو بني عبد الجام يعني ان شاء الله مصر ان شاء الله ابو بني جام دعا وانا جبريل جبريل فيقول مني إيه؟ اني نكم ابغض دماء بني فلان جو فابغضه بنكو الله اكبر يا الله دكون داي بني دنام جام بو نيم لاي بغي نون كونترول بل لاي بني توب فراتاي نيك سي نافلاي تاي موني خالد لا صوبي با بغلا وايي با فراتاي ساغني نافلاي wala ngay xas tarixa nit yàlla yi ba yàlla jéppi la noo rek la ni yàlla di bëggee noonu lay bañee lan la yàlla di bëggee mooy méngoog nitu yàlla yi nekk ci lañ nekk muy seen tarixa yeeg farata ya mu lay bañee sàgg na yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu wëlli yàlla yi bu la yàlla bañee nag دمنا جبريل بنا ديو بنكو اني نكون ابغض بنا فلانا ديو فابغض بنكو لولو مسوي فيبغض بنكو جبريل جبريل سمي ناري توك مو في علي سماي تي واسمان ان الله انك يلا يبغض دنا بن فلانا ديو فابغض بن لنكو موتي تي اسمان يلا بن لا ديو بن لنكو فيبغض مو بن واجو اهل السماء واسمان واسمان يجيبكو لو مصيبه Hmm? su ma tooloo topp ñu teg la woon ñoo ko ak baax daaw mbañeel fi àddi suuf xol yi si boppam ñoo ko résisté moytul nag xolu benn góor yàlla résisté la ndax ñoom seen xol yi dafa mel ni courant buy maase benn la bu la kenn si ñoom bañee rek mën nga wax daanaka ñeneen ñi bañ na ndax duñ bañ lu moy ci yàlla nitu yàlla bu gisee nitu yàlla rek bëgg ko bu koy bëgg sax du ci man dara waaye nitu yàlla bu la bañee rek amaana yow nit yàlla yëpp jëpp nañ dàqañ na ci péew bu yàgg bañ gi mooy lan mooy xool nañ seen biir xool gis ne yow ko bon nga nanguluñ la dara xam nañu ne saay-saay saay-saay ñaari saay-saay boo xam ne mënu koo wax dara dangay maslaa ak moom rek ndax ragal xayam yu bon yonent bi def nopp toog ak ndey Aysatu nit bëgg a dugg mu ne ku bon a ngi ñëw xam nga léeg-léeg yonent bi sallallahu alayhi wasallam saay saay da ko daan walee de mu ne ku bon a ngi ñëw waaye ñëw ba toog yonentu yonentu kaf ubbil ko kanamam mel ni dara xewut waa ji génn ndayay sut ne ah lii mooy la yow yaa ngi ko xas nii wala ne saay saay la wala ne ku bon la mu ñëw nga ubbil ko sa kanam mel ni ku ëpp wala yaa maanaam mel ni ku ku baax mu ne ko ki gën a bon si nit ñi mooy koo xam ne nit ñi dañuy maslaa ak moom ndax ragal xayam am na loo xam ne moo ko doxaleek moom rek fitna ba muy jur mooy ëpp amaana moo tax léeg-léeg kon xëy na nga gis yenn nitu yàlla ñu wóor nitu yàlla dañuy maslaa ak nit mel ni ko fonk amaana boo xam ne ko contour rek carrément moom ci dara ñaar yëpp résister la rek nit mën na laa ubbil kanamam fekk xolam dàq na la bu yàgg yonentu wax loolu ne wax na ko si hadis ne ñun dañu ubbil suñ kanam nit fekk suñ xol bi daf ko rëbb léeg-léeg ñu ubbil suñ kanam aw nit fekk suñ xol résisté na ko bu yàgg waaye ci maslaa dañuy maslaa moom ndax xayam wu bari la ñuy moytu maanaam boo ko naree teg ci yoon la muy lor moo ëpp la muy jëriñ loolu nga fekk moom doole jooju dégg kon kooku it xol yi résisté nañ ko rek kon bu leen yàlla yàlla musal ci xol nit yàlla yi dàq la ku xol nit yàlla yi dàq rek baaxoo ndax ñoom duñ la bañ ci parparloo duñ la bañ parce que da ngaa baax duñ la bañ parce que da ngaa melokaan wu rafet dañ lay bañ parce que sa melokaan dafa ñaaw maanaam say jikko dafa bon dañ lay bañ parce que noonu yàlla nga dañ lay bañ parce que da ngay yàqal islam dañ lay bañ parce que sa bakkan bi dafa ñaareel bañ parce que jubóo fiiraange ak mbañeel nag du benn na laa bëgg ba mel ni ku la bañ loolu mooy fiir ku la fiiree rek daf laa fam parce que ni nga mel daf koo neex mënu koo mel xol bi xaw a ngëbu mais ci biir xol bi accepté na la xam ne ne yow fi mu nekk nii jàmbaar nga bëgg naa mel ni yow ndax koo fiiree rek nangu nga moo la raw wala boog am na loo bëgg wala ragal nga mu jiitu la loolu du mbañeel mbañeel ma la mooy koo xam ni sa biir xol da xam ne ab kaccoor la ab saay-saay la nga résité ko loolu mooy baax daaw loolu la yàlla def ci xol yi moo tax bëri na koy gis am na lu ci àdduna mais kenn bëgg ko na koo xam ne ni amaana bu nit ñi dajeeg moom sax danañ maslaa mais ku wér ne ak kooku dara foofu oh, cam bandi la rek kooku kay saay saay la rek te ñu koy wax duñu waxant hmm? loolu la muy mbañee bu yàlla bañee jaam bi dafay def ñëpp bañ ko suuf si daf daf koy tegal mbañeel ci kaw suuf si ñu bañ ko kontu ko jéppi ko ba may màndarga ne yàlla bañ na la parce que nit ñi ñooy xalifa yàlla ci kaw suuf ñooy seede yàlla ci kaw suuf boo baaxee dañ lay bëgg fos mbëggeel gi ñaar mbëggeel la dañ lay bëgg mbëggeel woo xam ni dara raxut wala boog nañoo xaw a kii nii sax waaye la seen boo bonee nag dañ lay bañ bañ sa jëmm sa jikku bi ñu yoree moom lañ bañ da ngay jëppi da ngay contour loolu mooy baax daaw fi at moom la yàlla di defal nit ki waaw kon su ko defee hmm, loolu mooy mandargaay mbañeelu yàlla yàlla bu bañee jaam daf koy woo bañ naa diw bañ ko bañ ko bañ ko mu jël mbañeel tegal ko ko ci kaw suuf nga xam ne ñi xam ñëpp te ràññee duñ ko bëgg ci la muy def dañ ko cee contre léeg-léeg nag nit mel ni ku bañ nit fekk daf ko réere réere moom mënu ñàkk ndax loolu ñu bëgg bëgg bëgg am na am ñoo xam ne réere complètement man nañoo mel ni ku la contour seen buñ xamoon li xew duñ la contour loolu moom bokk ci loolu kenn amul lu mel noonu yoon du sax am nañu ko réere ba léegi ñu nekk waaye yooyu yu ndaw ndaw xam ne doon ci biir nit waala Aysa jëlee nañ ci Aysa de yàlla gëm allah lana si moom anna rasulullah ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba'atha yónni na rajulan ab góor ala sariyatin ci benn sariya sariya mooy soldaar yoo xam ne ñoo génn ngir dox mission islam te yonentu nekkul seen biir bu ci yonentu bokkee nag xazwa la mooy xare yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa yowal benn waaye ci benn sariya fa kaana nekkoon yaqraw di jàng li asaabi ñeel gaañam ñu fii salaatim seen julli fa yaxtamu muy mottali mottalee bi qul wala ahad waa ji daal julli gu mu julli rek qul wallaahu ahad lay julli qul wallaahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad saxaaba yi ñoom lu leen jaaxal ñu laaj ko yonent xam nga mënu ñoon loolu ci yonent bi sallallahu alayhi moo leen jàngal ne ñooy wax ne eh, lépp lu yonent def rek yéen na ngeen jaamoo yàlla noonu bu leen soppi dara waxuñ dëgg ndax kii ànd na saxaaba yi xamuñ lii ci xaala yonent waaye moom fonk na ixlaas rek di ko julle gisu ko ci yonent bi sallallahu alayhi gisu ko ci yonent bi mm-hmm. moo tax boo jàng xaali saxaaba yi dafay weddi diine wahabiya tey diine wahabiya tey diine loolu yoo xam ne nii waxuma ko pour contrôler pour gor l'islam la moo ko tax jóg parce que l'islam lépp fi mu nekk nii doxalin lislaam lépp yonentu daaw ko buñ ne nag ni nga doxalee ngay doxalee léegi tey danga nga xool danga nga toog ba ci kanam sax am ñëw rek yore seen oto oto yooyu oto yooyu di màbbu topp école yi ايوه ده اللي ياكل ده ياكل البتاع مسكين ده ياكل كي يعني قتلا قتلا كي الا بقتلا كي بدا قال قتل كي طب كان يوا ايش كان بصا تعرف بين تيري كان انا مو تعرف تيري إيه، قتلا تيري قتلا سراي بدا فلا يمجي غير مذهب يا انه اموت المذهب اموت بين المذهب يونت رجلين توب بدا fan lañ jëm léegi mm-hmm. hmm? xam nga am xam nga am ñu defee noonu moo tax diine jooju boo ko seetloo dëgg-dëgg rek xam ne lii du lislaam boo jàngee xaal yonent bi sallallahu alayhi wa saxaaba yi gis ne ñoom lu baax la dañ ko daan def saa ñu rey ci yonent bi sallallahu alayhi bi nekkoon saa yu toj lee jàpp mm-hmm. bilaal saa yu toj lee day jàpp yonent sa léegi mu bàyyi noonu saa yu jàppee julli rakk bilaal hmm? xubay bi keroog bañ koy rey dafa dafa may leen ma julli ñaar rek ñu lay waaj a rey nga julli ñaar rek moo ko njëkk a sunnaal gisul ko ci yonent bi sunnaal waaye xam na lu baax la kii it mu nga dem di jiite gaa ñi lexlaas hmm? xam nga bu demee maa may dof yoo xam ne tey bu ñu gisee kurus nii lañuy def bant bant tey ku mel ni kuy téye jaan pour sànni ko xam nga ne ñooñu lé boo leen dimbalee léegi ñu toj école yi. am na ñu dofee noonu am na dof yi dem ba nga xam ne kudd duñ ko yor kudd lekkee kudd ñu bita eh, jotee ak diine <laughs> kudd kay pour cent lu baax ak rek lu ñu wan rek la mais lu kudd jotee ak diine mais am nañu toll foofu hmm? Hmm. ñooñu boo leen toppoon seen àddina lañ njëkk a xatal da ngay dem parce que yëre bu téer ñëw ñu ne mukk téer téer bita yére bu tubaab defar xeefeer xeefeer xeefeer bi daal parce que ñun yonent bi sol ko ñoom kon duñ ko sol bu yàggee hmm? bu yàggee ñu màbbu seen kër yi bu jàkke yi hmm? ngénte am ñu tas ko yonent bi daa ko ngéntee nii maanaam diine waxa bi buñ ko toppoo nit ñi duñ dund duñ dund critique wu ma leen de ah waaye na wax dëgg yàlla dañoo réer loolu ñu andi moom du njub su ko defee waa ji xul wala ahad la doon jiitee hmm. فلما رجعوا بن دلوسي ذكروا نيتو ذلك لول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابه يخمو يون سي يونتو آه، ني ني واخكو نغا امون نقول ولا احد لا ني جيتي فقال يونس نكو سلوه لاج لين كو لاي شيء ني بن بير موتو يسمعو مي ليغي ذلك لول لوتام مي ديف لي واخو ني سي يولا كو غيسم واخو ني سي يولا كو روي دفنا رنا مكو بك نخ ميرو يالا فسالوه لاك فقال من لانها نخ صفه الرحمن ميرو يالا لا دما غيس اخلاص muy melal yàlla melaw yéeme ma fonk ko faanaa man uxibu dama bëgg an aqra ma jàng bi yaa ci moom ndax melo yàlla la fa qaala mu wax rasulullah yonent yàlla sallam ko axbiru xibaar leen ko an laa ne yàlla taala kaw ne yuxibuhu mu dana ko dana mu ngi ko bëgg léegi maanaam wax na ko ni mu bëggee yàlla noonu la ko yàlla bëggee bëgg na melo yàlla bi ba nag mu tàqali ko moom moom lay julle xamal leen ko nag yàlla bëgg na ko moom it yàlla ku ko bëgg mu bëgg la waaye ku bëgg yàlla la da nga koy jaam bëgg yàlla dàq mooy yàlla waxoo dëgg walaw kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna al muhibba liman yuhibbu mutiun sa gi bu doon dëgg da nga ko topp mm-hmm. ndax ku nekk kam bëgg lay topp ñu bëgg dofee sax ngeen fi dof mm-hmm. waaw léeg-léeg nit ku jël tubéy ji xar ko ba mu xaree ba mu xaree ba mu yàqu mu sol ko rek nañu commencé xar seen tubéy yi di sol soppeem yi xam nga tubéy ñu xar moom lu ci nit yi sol léeg-léeg ngir ko wàccee tubéyam ñàkk jom bu wàccee tubéyam ngir soppeem yi commencé wàcc seen tubéy léeg-léeg ngir ko sol mbaxana au lieu mu jiwoon mbaxana mu jëngal ko fële ngir soppeem yi commencé jëngal mbaxana jëngal mbaxana te nag léeg-léeg mu am sopp yoo xam ni sax wallaay seen i waajur ay kilifa yu mag lañ nitu yàlla lañ yàlla rek lañ xam ñoom ñu dem sopp ba soppam saay saay di def ni saay saay bi di solo eh, léeg-léeg gis ko hmm? bu fekkee nag ñi sopp saay saay yi sax ñu ngi def yëfu saay saay yow nga yàlla nga sopp te toppoo yàlla waxoo dëgg boo bëggee yàlla da ngay xool ni yéen su doon doxalee ak ñu baax ñu ñuy doxalee nga di ko doxale seen comportement ngay ngay yore seen wax ngay wax seen jëf ngay jëf seen melokaan ngay melo koo bëgg niru niru ko gis nga mbëggeel su dëggoo waa ji dana am lu mu niru mu bëgg ba ci fi àddina sax nit boo ko suivre rek da nga xam ay soppeem parce que léeg-léeg dafay dem ba niroog yenn soppeem yi ci benn yenn mbir yi léeg-léeg ku bëgg nit nga xool ko muy dox rek nga gis ne ni waa ji doxee lay doxee da ko yàgg suivre waa ji ni doxee neex ko ba mu ko te yëgu ko sax pourtant ci wàllu àdduna la ko rey léeg-léeg nga gis ku bëgg nit jaxasoog moom nga dégg ko mu wax rek mu mel ni waa jooju wax soppeem ba wax jël na kàddoom gi sax te yëgu ko moom jéemu koo royal de daf ko bëgg ba naturellement niru na ko ci kàddu daf ko bëgg ba naturellement daf ko niru ci jëmm léeg-léeg gis ku bëgg nit bu solo ba pare rek boo ko xoolee naan jiw la parce que daf ko roy te yëgu ko sax dégg nga kon koo bëgg il faut nga niru niru ko ba ci sax si wàllu àdduna sax léeg da nga koy niru niru loolu mooy mbëggeel loolu mooy mbëggeel mën ngaa bëgg nit nag te waxoo ko ko sax fekk moom rek nga bëgg Hmm? waaye boo bëggee nit wax ko ko loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon su ngeen bëggee nit wax leen ko dama laa bëgg loolu la yonent bi jàngaloon waaye foofu nag dama ne la góor gu bëgg ji gu bëgg góor jigéen ju bëgg jigéen waaye nag eh, xale bu goor ak xale bu jigéen nga ne ma ko bëgg te yàlla tax seytaane rek la muttafaqun alayhi hadis buñ dëppoo la hada in radi al islam mastata'tum wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa